ginnaaw tey jii ki nga xam ni moom mi la di ministre bi lay ji Mansour Faye gën ko xamee ci ki nga xam ni moo di gorob kii di président Moussa Macky Sall ci jamono joojule mën nañ ne ak lenn ci li nga xam ni jëlee nañ ko ci ay mesures jëmale ko ci bile mbir ak ci lépp loo xam ni dafa wundu ci bile tali ak ci li nga xam ni moo di dem beeg dëkk bi rawat na ci li nga xam ni moo di bis ak yu jamono jooju sax mën nañ ne lëmbee bu baax a baax am na ci entre gouvernement bi ak ci lenn li nga xam ni ñoo di chauffeur ba ci ñi nga ni ñoo di jaaykatu pëne yi la ci ndagal li nga xam ni ñoom ñi la di ministre wala gouvernement bi yëkkate nañ ko jëlee ko ci 22 mesures yi nga xam ni muy ñaar fukk ak ñaar ci ay mesures yi nga xam ni ñoom ñi lee di ñoom ñi lee di gouvernement bi ñoo ko jël ngir kat jàpp ni lépp bépp manifestation ak bépp li nga xam ni dafa jëm ci l'accident mën nañ ne jaayum pneu yu bon yi moo ko waral rawat na ci lenn ci li nga xam ni ak bus yi jëm di yàpp yàpp bagage yi nga xam ni dafay jëm ba jéggi doyo ci loolee sax moom mi lee di ministre bi lee ak at naaka naataangoom tax na sax ñu fareew daal di mujjee dakkal lépp loo xam ni ci ay bis la ak ci leen li nga xam ne ci ay horaire ak ci lenn li nga xam ni moo di jaayu pneu fii ci Sénégal ci loolu yi mu nekk mbir nga xam ni transport jamono guñ toll nii yëngu na lool ba ci li nga xam ne ñoo di waa secteur Tata xamle woon bu baax baax dinañ yokk ci lenn ci ay prix ba moom mii la di Mansour Mansour Faye ay mesures bu baax a baax ci santaane ci li nga xam ni moo di police ak gendarmerie képp koo xam ne gis nañu yokk ci Tata ak li nu mel nañ leen ko jàpp bu baax ci loolu sax ñi nga xam ne ñoo di secteur transport bi xamle nañ bu baax du yàgg dara léegi ñu décrété benn grève ngir kat métti mesures yi nga xam ni gouvernement jël na ko naa autant que ñu waxtaan ak ñoom ci jamono jooju la sénégalais yi di xamle bu baax baax lan moo wundu ak lan moo waral li nu mel ci ginnaaw ji nga xam ni kii di président de la république monsieur Macky Sall mi nga xam ni mooy fal jamono gi ñu toll ci ay ministre te gis nañu tey jii mën nañ ne ak cuule am na bu baax baax jëmale ko ci gorom gile ginnaaw ak accident bi nga xam ni amoon na fii ci Kaffrine ci nekk fii ci Cikki root na bi nga xam ni tey jii amee na fii Louga nekk si Sakal moom mi leen di sénégalais yi lu ñu xamle bu baax baax kii di Macky bi nga xam ni Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr ginnaaw bi nga xam ni mun nañ ne ci état fi nga xam ni moo di Covid bi defoon na ak lajjite sàkkute fa sénégalais yi ak ci lenn ki nga xam ne moo di Macky Sall dafa jël ak sanction teg ko ci moom mi leen di ministre bi leen di doomu Yoff gi leen di maire Yoff jamono jooju le ba sanctionné ko wàcceel ko ci li nga xam ne moo di ministère yooyu ngir jàppee dafa def ak cuune bu baax ak lajj moo waral Covid bi li am am ci ak ci leen li nga xam ne gis nañu jàllul yoon benn yoon tey jii mën nañ ne ci leen li nga xam ne sàkkuteefu sénégalais yi loolu la ñu warawaat di sàkkut ak di ko wax bu baax lan moo waral kii di Macky Sall jamono gu ñu toll nii wàccewul benn yoon gorom bi lee di Mansour Faye ngir kat xam ni mën nañ ne ginnaaw l'accident yi nga xam ni jël na 22 mesures ak yu ni mel te gis nañ ba léegi dara changé wul day yokk l'accident yi day gën di yokk day gën moo waral li ni mel moom mi lee di yoon sanction ngir kat jëmale ko ne moo di bile di ministre bile di wuyoo ci turu ki nga xam ne moo di Mansour Faye mu nekk mbir yi nga xam ni senegal yi ñooy faral di laaj ndax kat Sénégal dafa am léegi ku ma am ndey ak ku ma amul ndey ndax kat moom la di Diouf Sarr jamono gi nga xam ni lajji na bu baax kii di Macky Sall amul wul benn yoon dafa jël li nga xam ni moo di yët bi rek daal di ji gis nañu ginnaaw bi nga xam ni kii di Mansour Faye di goroom lajjee amuñu leen sa sénégalais yi ñu ngi sàkku bu baax a baax ngir kat mu wàcceel ko waaye dafa mel ni dafa leen tànkamlu ci bile mbir